bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaam ala almabuuti rahmatan lilaalamin sayidi alxalqi ajmain sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiina abilqasimi almustafa muhammad wa ala ahli beytihi alladina ixtaarahum allahu wastafahum wa jaalahum qudwatan lilaalamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk auditeur rajo Moussaïr FM 93.2 di kàddu njabootu yonent bi di jubee ci complexe imam ali alayhi salaam ci zac mbaaw Dakar ak ci Zahra FM 93.8 di kàddu njabootu yonent bi di jubee ci Kolda ak li ko wër asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu dellu si waat leen nuyu di leen te di leen ndokkel di teg ndokkel bi ci loxol Mawlana Chérif Mohamed Ali Haydara bu jëm ci mboole mi maamam ak ci njaboot gi ak ci jullit yëpp ndokkel ci li ñu tuddee al yawmul alami lil mar'a wala boog journée internationale de la femme wala bis bi nga xam ne moom la ñu jagale mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen te mooy bisu juddug Fatimatu Zahra salawatullahi wa salaamuhu alayha bi nga xam ne ci la asamaan wala boog ci la nituk ajjana loo xam ne moom directement ajjana la jóge ko wàcc ci suuf pour leeral ñi xëcc ñi omat ñi ànd ak ñin delluwaat fa nga xam ne fa jóge woon mooy àjjana kon ñu leen ciy dokkeel ñëpp di ñaan sama borom subhanahu wa taala ci barkeem ak ci leeram ñun ñëpp am ngërëmam dund ci jàmm waaye delluwaat fekki njëggalal sunu boroom ak texeem ñu dellu si waat ak yéen ci sunu dox bi nga xam ne moom la dox di jéem taataan tuuti ci leeru fatimatu zahra salawatullahi wa salaamuhu demoon nañ ci yenn jikkoom yi ci sunu dajee bi weesu mu juróom benneelu dajee waaye tey dañuy ñëw ci beneen wàll ci dund fatimatu zahra salaamullahi alayha moom itam ñi seet tuuti luñ ci niitu comme niñ koy waxee loo mënul jël lépp loo bàyyi léppam la wala boog loo ci am jël dañu ñëw tey ci tomb bu njëkk bi muy xam-xamu fatimatu zahra salawatullahi wa salaamuhu alayha nga xam ne bu ñu waxee ne rek fatimatu bidaatu minni sangi muhammadin sallallahu alayhi wa ne fatima bidaatun min nii daggit la ci man wala faas la ci man wala gën wàll la ci man wala boog mooy feeñal li nga xam ne mooy wàllu nubuwa gi mu yónni gi ma yàlla yónni la cay feeñ ci jigéene comme man góor laa mu ngi feeñ ci Fatimatu Zahra buñ ko waxee rek day fekk day doy sax pour ñuy wax xam-xamu Fatimatu Zahra salawatullahi wasalaamu alayha waaye bu fekkee ne dañuy wax rek ne fatimatu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali nee na yàlla yarbaali ridaha yàlla day bu fatima d'accord wala mu gërëm yàlla gërëm bon dañuy xam ne fatima bon dugul kuy làmbatu ndax koo xam ne boo gërëmee yàlla gërëm bon la ngay gërëm da nga koo xam loolu rek doyoon na ci ñi xam fatimatu zahra xam-xam foo ko natt romb na fa waaye bu fekkee dañ yonent bi sallallahu alayhi wa alihi dafa wax ne ku bégloo Fatima bégloo nga ma te ku ma bégloo bégloo nga yàlla te ku bégloo yàlla yàlla dugal la àjjana ku lor Fatima lor te ku ma ku lor ku ma yàlla yàlla yàlla dugal la safara da ngay xam ne bon Fatima ngërëmam day dëppoo ak ngërëmal sunu borom subhaanahu wa taala day dëppoo muhammadin sallallahu alayhi mi nga xam ne moom du waxantu ndax moom lu mu wax yàlla ko ko waxloo wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha bon Fatimatu Zahra salaamullahi alayha kon da nga koy gis rek muy benn calala benn branchement boo xam ne da ko branché directement ci suñu borom subhanahu wa taala jaarale ko ci sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ak njaboot ga kon yooyu rek seetluwaat jàngataat hadis yooyu rek doyoon na nga xam ne Fatima nekkuloon kuy làmbatu ci wàllu li jëf ci wàllu xam-xam waaye lépp lu mu jëf lu nekk rek day dëppoog li nga xam ne li nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko wax ne ko lu mu leen jox jël leen wa ma ataakum rasul faqduhu wa ma nahaakum anhu fantahu kum ne jàkk ne la lu mu def lu mu def gërëm naa lu mu lu mu def yàlla gërëm na da ngay xam ne ko wax dëgg yàlla war nañoo mën a xam ne nag làmbatoo moo tax Fatima Zahra salaamullahi alayha yàlla da ko daan dafa daan am xam dafa daan jëlee dafa nekkoon comme ci niveau boobu la toloon ci xam-xam waaye dafa nekkoon ko xam ne itam xam-xamam fu nekk la ko daan jëlee wala ci boor yu baree bare la ko daan jëlee bokk na ci yi nga xam ne fa la ko daan jëlee moom sang bi Muhammad moom Fatima Zahra salaamullahi alayha da ko daan jëlee ci njaboot gi ci yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali da ko daan da ko daan jëlee ji njaboot gi doomam yi nga xamante ne ñoom itam ci martaba boobu la ñu nekkoon ndax dañu daan jël li li yàlla namm doom aadama yi xam ko li yàlla namm jinne yi xam ko li yàlla namm mbindeef yi jaar fa pour adduna bi jaar yoon àllaaxira dëppoog euh, te texe loolu yëpp ñoom dañ koo xamoon ba tax da ko daan jëlee doom dañ ko daan dañ da daan jëlee ci doom da daan jëlee ci itam ci yonente bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali moom moo tax ba fu nekk rek euh, xam-xam da ko fa daan waaye da daan jëlee itam moom fatimatu zahra salaamullahi alayha ci directement ci sunu borom subhanahu wa taala jaarale ko ci ay malaaka bokk na ci jibril waxoon nañ ko ci sunu dajee bi wees baatub waxyu waxoon nañ ko fi imaamuna amirul muminin ali ibn abi talibin salaamullahi alayhi bañ ko laajee waxyu daf ne ban waxyu nga may laaj waxyu dafa am juróom-ñetti façon yi wax yu bu ma bu fekkee di limba bokk na ca wax bi nga xam ne mooy wax yu risalati wa nubuwa boobu ci yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi lay jaar boobu dagg na dootu amati mukk ndax mooy xaatamu nabiyin ki nga xam ne moo jeexal ñi yàlla doon yónni waaye lam fi bàyyi lool yëpp na muy gongeekoo na muy jógeekoo ca fa mu jóg nekk boo ko tuddee nga tuddee ko lawul mahfud jaar ci ay jaamam te mu daan ko def njëkk loolu njëkk même yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ñëw loolu naka jekk day am jaar na ci ay yëmb jaar na ci ak nit lu ni sëru yonent yàlla mu kii eh, yonent yàlla Moussa jaar na ci Isa jaar na ci Mariam jaar na ci jaar na jaar na ci yu bare bare yoo xamante ne day jaar day jaar tout ba léegi ci ay nit yoo xamante ni wax yu boobu nga xam ne nekkul wax yu rijalati wa nubuwa waaye waxru ilhamiya la day ñëw ba léegi di wàcc ci ñu nekk loolu nag Fatimatu Zahra moom suñu borom subhanahu wa taala da ko daan yónnee ay malaayka ñëw di ko xamal di ko jàngal di ko euh, wax li nga xamante ne yëpp moom mooy li am moo tax ba euh, léeg-léeg nag sama classe gi nga xam ne bu ñu yeggut ci yenn euh, niveau yi liñ leen wax rek ñu daal di ko euh, teg baat waaye fekk ne Zahra moom salawaatullahi wa salaamuhu ci niveau boobu ci la tolloon ba tax dañ ko daan xamal suñu borom subhanahu wa taala daan na yónni malaayika mu ñëw wax ko euh, exactement li nga xamante ne mooy am am na seede yu bare bare bare yoo xam ne nit man na ko ci jëlee ittaqullaha yuallimukumullah bu ngeen xamee bu ngeen euh, ragalee sunu borom subhanahu wa taala rek sunu borom subhanahu wa taala xamal leen ndax xamal gam leen nag mooy xamal noonu da koy xamal ci indil la ab ustaas bi lay jàngal wala da ngay dem ci école bi mu doo la ko jàngal déedéet ragalal rek na set rek bu setee rek amut sikk sunu borom subhanahu wa taala ndab lu set lu nekk dana ci sotti mbiram moo tax yàlla du sotti mukk foo xamante ne setut loolu itam lu jara ba xel la moo tax nag koo xam ne benn tilim amu ko ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax ne innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira balaa loolu mu waxoon ne la astafa adama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala ibrahima alal alamina zurriyatan ba'duha min ba'din ba ñoo ñoom dañoo set bu njëkk moo tax lu nekk rek lu mën a sotteeku ci ndab lu set rek day sotteeku ci ñoom salawatullahi wa salaamuhu ala rasulina wa alayhimu salaam moo tax da daan jàngale da daan jàngale ay lu bare bare daan jàngal góor ñi daan jàngal jigéen ñi daan jàngal ñi nga xam ne ñëpp ñoo ko nanguloon wóolu ko zahraul kubra salawatullahi wasalaamu alayha da leen daan jàngal léegi-léegi nit yónni eh, soxnaam ne ko man de nangam ak nangam laa doon laaj ci demal ci Fatimatu Zahra mu ñëw mu waxal ko wax wala li nga xamante ne moo ci nekk am benn wuute ko ne da koo laajoon sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali benn bis zahra salamullahi alayha benn e, nit imam munaja e, alxasanul askari da fukkeelu imam ak benn ci ay matu al bayti salawatullahi wasalaamu alayhi mooy wax mu ne benn góor dafa wax soxnaam ne ko demal ca fatimatu zahra doomi sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali nga laajal ma ko ne ko ndax man bokk naa ci seen chia mooy ci seen taalibe wala bokkuma ci seeni taalibe nee na mu ñaal ji soxna si daal li ñëw laaj ko ko ne ko sama borom kër yi moo may laaj ndax moom ci seeni taalibe la bokk ndax bokkuma ci waaw moo nekk lu am solo mu ne Zahra salaamullahi alayha ne ko demal ne ko bu dee li ñuy digli mu ngi koy def lañuy tere mu ngi koy bàyyi bon ci sunuy taalibe la bokk ci sunuy chia bokk bu dul loolu bokkut ca loolu tam lu am solo la waaw xam ñoom la ñuy diglee nga def ko xam la ñuy tere nga ba wala boog comme ni ko ñuy waxee xam la muy digle nga góorgóorlu bis bu nekk nga yokku ca ba la nga man ca man yépp nga def ko waaye lu muy tere nga bàyyi yëpp lu dem lu bari lu am lu ma am solo mu ne ma daal di dellu waxal ko sa borom kër ne ko lii dee wax mu ne daal bu fekkee ne lu ñuy digle yaa ngi yaa ca lu ñuy tere bay bàyyi nga ko sore nga ko bu boobaa moom ci nga bokk waaye bu dul loolu nag bokkoo ca mu ne ba mu ko waxee borom këram borom li ko man de bon alako naa man nan leen nit di bàyyee def bàkkaar ak ay def ñaawteem man de bon safara laa jëm man man de bon du safara laa jëm boo xam ne doo fa jóg mukk nag mu ne Eh, mu ne mu daal delluwaat wax ko ko mu ne déedéet ma loolu de du foofu de wax ko ne ko sunu chia ñooy ñi gën ci waa ajjana ñooy VIP ye boobu duñ ko mën a tuddee noonu waaye nag képp koo xam ne bëgg nga ñi képp koo xam ne ñi bëgg bëgg nga leen ñëpp ñoo xam ne noonoo nga ñi ñu noonoo kooku koo xam ne sa xol sell na sa làmmiñ sell na eh, loolu ñoo ñooñu de bu fekkente ne ndax dañuy def noonu nañu xam ne ñi ngi bokk ci ñi ngi bokk ci ñi nga xamante ne ñoo ñoom ñooy nekk aljana waaye nag dana ci am ñoo xam ne danañ jaar ci ay jaaruwaay ñu setal fa seeni bàkkaar moo xam ci ay natt lay nekk moo xam ci ay épreuve lay nekk moo xam ci sukuraat ba lay nekk moo xam ca safara ci boppam lay nekk nekk ca kaw foo xamante ne xëy na du nekk ci eh, eh, asfala saafili ne mu ñu tuddee kuuñ ak ajjana ja ak yi demee noonu yoo xam ne yàlla dina leen fa xettali wala boo ñu xettali leen ci bëgg gi nga xamante ne moom la ñu bëggoon waaye fonk gi nga xamante ne itam moom la fonkoon moo tax ñi nga xam ne dañoo bëgg sahara salaamullahi alayha dañu góorgóorlu ñu ñëpp rek di def ay ndigal ya di bàyyi ya waaye ku ci fekk ne itam foofa xëy na euh, yëggoo fa ah nañ yàlla yóbbu foofa rek waaye mën ngay mucc moo tax mu ne ko bon dafa am ñoo xamante ne ñoom ñoom suñu chia lañu ñoo xam ne fokk rek dañuy yegg euh, ñoom ñooy VIP yi ñoom ñooy ñi gën a set sette ca ajala ja waaye te réew nag ñi nga xam ne ñooñu bëgg bëgg suñuy ñooñ ñi nga xam ne eh, ñi nga xam ñooñu bëgg bëgg ñi nga xam ne muwalina la mooy ñi nga xam ne dañoo ànd ak ñin waaye bañ ñi nga xam ne itam dañ ñu noonu ñooñu itam nag àjjana lañ jëm même bu fekkee ni ci degré lay nekk ba loolu itam lu nekk lu am solo la bu daal Zahra xam-xamu yónent yi xam-xamu yónent bi xam-xam yi fi nit mën a xam yëpp Zahraul Kubra salaamullahi alayha da koo xamoon moo xam da koo jaarale ci sang-sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali moo xam da koo jaarale ci borom këram imaamuna amirul muminin baab madinatul ilm moo xamee ko fa moo xam da koo jaarale même ci eh, doom ya Asan ak Useynu moo xam da koo jaarale ci malaaka mu ñëw di ko diy moo xam da koo jaarale ci al ilhamiya waaye lu nekk rek ak façon bu nekk rek xam-xam da doon ñëwalee Zahra moo tax moom dafa xam waaw dafa xam malheureusement nag boo demee ci téere yi nga xam ne ñooy bind hadis ci gën a siiw ñaare fukki xadis yi saara doo fa xam xam naa ni allah ñun bu dëppoog dogalat borom bi dinañu ñëwaat ci yenn xadis yoo xamante ne xadisu fatimatu sahra la salaamullahi alayha ay ndénkaaneem ñu ci ñëw as ak aslaf balaa jeexal suñu dox dox bi bu dëppoog dogalat borom bi bu ñu delloo ci ñaareelu point <coughs> mooy li ñu tuddee mushafu fatima mushaf léegi sax gaa yi nga dégg di bëgg ñaawal naan Fatima dafa ame ab kaamir waaw ndax mushaf lañ ca mooy kaamir mushaf kat ñun ñoo ko tuddee ñun nit ñoo ko tuddee kaamir waaye alquran moom tudde ko kaamir moom alquran moom tuddee na alquran tuddee na tanzil tuddee na furqaan tuddee na euh, leneen waaye mushaf moom bokku ci mushaf moom film lu mooy ay këyit yu ñu dajale donc lay firi nag waaw tax ba mushaf Fatima ñin biñ ko buñ ko jël teg ko ci li sos ñin waaye nañ ko jël mushaf teg ko fa nga xamante ne moom mooy teguwaayam mushaf bokk ci tur yi alxuraan indi bokk ci tur yi sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ñëw indi tuddee ko alxuraan waaw moo tax mushaf fatima téere fatima balay firi téere fatima balay firi moo tax eh, am na ay yu bare bare bare yoo xamante ne ñëw na ci waaye alquran du wut alquran moom du mu fatima du alquran bon lan mooy musafu fatima musafu fatima téere bu mag la boo xamante ne jibril ci boppam salawatullahi wa salaamuhu alayhi da daan ñëw di wax ak fatima fatima di bind wala boog imam ali alayhi salaam di ko bind rawatina gannaaw euh, bi yonent bi jóge ko salawatullahi wa salaamuhu alayha ñu bëri da wax naan jibril wàccetul day kay waaw day dafa indiitul waxyu risalati war nubuwa indiitu ko muy loo xamante ne dafa ñëw ci waxyu boo xamante ne day ñëw nekk risala comme ni alxuraan daan ñëw di ci façon bi mu ñëwee indi ay atte ya indi e, histoire ya indi comme ni alxuraan indiitut alxuraan ndax alxuraan pare na indiitut nubuwa ndax al moo nubuwa jeex na waaye nag da daan ñëw day ñëw nag te day ñëw ba léegi nag waaw loolu moom tamit loolu jara baxal la ba tax gannaaw yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi bi mu fi jóge ko da daan ñëw di dalal Fatima ci li nga xam ne moo ko dal muy tiis wi e bu ko defee e di ko wax imam ali alayhi salaam di bind ay ndénkaane li nga xam ne mooy xew gannaawam li nga xam ne mooy am ci njaboot gi li nga xam ne mooy trajectoire bi nga xam ne ci la bi jaar ak ci jaar bi fi yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi jóge ko ak fa mu nga xam ne foofu lay jëm loolu yëpp jibril day daan ko wax muy ko bind moo tax imaamuna ali ibn musa riba salawatullahi wa salaamuhu alayha din wax naan nekkoon na fa moom imaam ali alayhi salaam musafu ba ñu laaji imaamuna jafar ibnu muhammad asadiq di juróom benneelu imaam ci ay matal bayti salawatullahi wa salaamu alayhi ne ko waaw musa fatima bi ñuy dégg moom mooy lan mu wax mu ne fatimatu daal inna fatimata makasat baada rasulillahi salallahu alayhi wa alihi xamsatan wa sabina yowman imaam eh, nee na imaam nee na imaam sadiq salaamullahi alayhi ne fatima bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam dégg ko des na nekk na ci adduna juróom ñaar fukki bis ak juróom soixante quinze jours mu ne wara kaana daxalaha xusnun shadidun mu am benn tiis bu mag boo xamante ne moo ko jot ci ñàkk gi mu ñàkk way juróom wa kaana jibrilu alayhi salaam yaatiha jibril da ko daan ñëwal fa yuxsinu azaaha mu daan ñëw di ko jaale ala abiha ci baayam wa yutayibu nafsaha wa yuxbiruha an abiha mu da ko ñëw di ko di di ko dalal e, di dalal xelam di ko sol wax baayam di ko wax place bi nga xam ne moom la baayam am wa yuxbiruha muy ko xamal tam bi ma yakunu baadaha fi zurriyatiha ak moom bi fi jógee ko lan mooy xew ci njabootam mu ne loolu yëpp nag wa kaana aliyun alayhi salaam yaktubu zalika imaam ali alayhi salaam da daan bind lépp loo xam ne jibril da ko daan wàcc wàccee ci moom fa haada mushafu fatima loolu moom mooy mushafu Fatima boo demee ci njabootu yonent bi de ci alkaafi noonu la ko nettalee moom bon loolu moo tax ju nañ ci beneen xadis boo xam ne imaamuna Jaafar ibn Muhammad Sadiq salawatullahi wa salaamuhu alayha laa yaat nañ ko ne ko waaw lan mooy mashafu Fatima mu ne inna allaha taala lama qabada nabiyahu yàlla bu mu jëlee yónne yónnentam ba muhammadin sallallahu alayhi wa mu ne fatima daxala ala fatima min wafatihi min al xuzni ma laa yaalamuhu illa allah fatima daal di am euh, naqar ak aw tiis woo xam ne moo ko jàpp moo xam yàlla rek ko ko xam fa arsalallahu ilayha malakan li yónni ci moom benn malaayka jibril la wala ñëw di ko dalal yusalli gammaha wa yuhabbisaha fa shakkat zalika ila amiril muminin mu ñëw di ko dalal di ko waxtaanal mu wax ko imam ali alayhi salaam mu ne ko isaa axsasti bi dalika wa sami'ti sawta quli lii fa aclamathu bi dalika fa jacala amirul muminin salawatullahi wa salaamuhu alayhi yaktubu dalik kull kulla ma samia nee na yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee ko fatima tiit fatima jaaxle fatima am tiis nga xam ne moo ko dal kon mënu moo ñàkkaa nekkee ku toll ni yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi xayrul xalqi ajmain lu yàlla mës a bind moom moo ci gën ma ne kum de sa way jur rekk nag ku ko bëgg kese bu bu fi jógee ko nga am tiis waxuma laak nag bam ca tegee nag nekk sa way jur nekk koo xam ne yaay gën wàllam bidaatul rasul salawatullahi wasalaamuhu alayhi malaaka ñëw di ko dalal am solo psychologue yi léeg-léeg bu nit amee problème dañuy wax ne dañuy woo psychologue ya pour ñu ñëw nag daal di ko di ko di ko di ko di ko dalal di ko fiixal kii nag malaayika yi psychologue psychologue ya ay malaayika lañu woon ñëw di ko dalal mu ne ko wax ko imaam Ali mu ne ko boo yëgati dara rek woo ma mu daal di ko bu mu di woo ko bu ko wooyee rek mu ne mu ñëw lépp lu lu mu lu mu ko wax rek mu daal di ko bind loolu mooy Musaf Fatima mu ne moo tax muy wax moom imaamuna Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala abaihi wa abnaihi alayhim salaam muy nettali mu ne amma innahu bu xam leen ne nag musab Fatima bii laysa fii shay'un min al-halal wal haram dara luy digle ne lii dagan na wala lii araam na nekku ci ndax loolu ci alquran la woon loolu wax yu nubuwwati wa risaala ci lay nekk loolu jeexoon na ca ba fi yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali jóge ko lii dagan na wala lii araam na lépp ñëw na xam nañ ko wala xamuñ ko koy mooy am waaye lu xam ne day wàccaat lu bees xalaalu muhammad daal xalaalun ila yawmi alqiyamati waaye xaraamu muhammad itam xaraamun ila yawmi alqiyamati salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin o tax imam sadiq salaamullahi alayhi mu ne amul ci lenn nag luy digle naan lii araam na wala dagan na li wala lii wala dagan na loolu amoon na ba pare waaye walakin fii ilmu maa yakun waaye lépp luy ami yëpp nag mu nga ci téere boobu moo tax lenn luy lenn alxuraan nekku ci boo demee e, imaamuna jafar ibnu muhammad as-sadiq ba léegi salawatullahi wasalaamu alayhim da doon dañ ko laaj ne ko dafa wax ne ñun de am nañu ina indina mushaf la mushaf Fatima ñun de am xam ngeen waaye diri ma mushaf Fatima ndax ñu ne ko xaala mu ne fii mislu quranikum haada salaasa marrat lu toll li seen alquran bi ñetti yoonam mu ngi ci cest ila hajmi haada alkitab bil qiyaasi ila alquran ko ne alquran téeméer six cent wala sept cent page la xamal ni boo ko multiplier bon vingt euh, vingt un wala boog euh, trois mille cent page lay war a nekk maanaam volume bu alxuraan ni mu toll téere bëri gën na ko rëyee ñetti yoonam bu alxuraan doon benn volume moom ñetti volume lay nekk loolu la ci jublu waaye wax na mu ne wallahi ma fihi min quranikum harfun wahidun seen alquran jii nga xam ne moom la ñu yore nii wàcc ci sang sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali lenn lu ca bokk bay ko lu ci lu ca nekk ci musaf fatima amut wenn araf sax woo xamante ne mu ngi ca musaf fatima woo xam ne ci alquran lañ ko jëlee nekk ci wa innama huwa shay'un amlahu llahu alayha wa awha ilayha xam leen ne daal mbir la moo xam ne suñu borom wa taala moo ko ko wa daal di ko ko wax yu wax yu ma ko waxee woon léegi wax yu noonu lay ba loolu mooy musaf fatima duut alquran comme niñ ko waxee baatu mushaf bokkut ci terminologie bokkut ci baat yi nga xamante ni moom la alquran ñëw tuddee ko alquran ji tanzil ak euh, alquran ak pour ak yooyu la ko tuddee waaye mushaf nit ñee ko tuddee mushaf ndax lu nda mooy mushaf ab téere la ay këyit la yoo xam ne dañ caa bind dara dajale ko mu def téere loolu rek lay firi nag bon buñ ne mushaf Fatima bu kenn wax ne ndax euh, mushaf Fatima ab alquran la du alquran mushaf la du tanzil du euh, du du du du du furqaan du la is la alquran tuddee alquran ji bokkul ak mushaf bon ab téere la boo xam ne Fatima ko yoroon comme ni nga ko waxee noonu incha allah beneen tomb boo xam ne itam jar naay baxel ci Fatimatu Zahra salawatullahi wa salaamu alayha mooy yitte ju mu joxoon alquran fonk ko lool sopp ko lool topp ko lool di ko jàng jamono bu nekk nag moom Zahra salawatullahi wasalaamuhu alayha da daan déglu dugg da ko déglu ci sang-sang muhammadin sallallahu alayhi wa daan ko mokkal nag alquran da ko mokkaloon xam nga ñoom ñoom ñooy alquran alquranu naatix moo tax moom alquran lu ci masa wàcc rek moom ñoom ñëpp dañ koo mokkal moo tax imaamuna amirul muminin salawatullahi wasalaamu alayhim mokkal gi mu ko mokkaloon waaye bokkoon ci kutaabi imaam ali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko binduloo mu daan bind da denc moo tax ñu ne mën a xam naa biñ ne eh, xar bu boobu ñuy tuddee ñu xar bu ridda amoon na ñu ne ba mu ñu bare ci xuffaasul quran yi faatu eh, bu ko dee ñu ah, bi de sànni wala doon bind koy wax dëgg bu ñëpp faatu woon war na faa mën a des nag waaye léeg-léeg man lay doon ah léegi man lay doon eh, moo tax taarixul falsafa léeg-léeg mu am solo di seetlu di seetluwaat waaw ah, léeg-léeg mu am solo lañ bindoon moo tax amirul muminin ali alim taalibin alayhi salaam loola nga xam ne moom la bindoon bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa ali jóge ko ak événement yi nga xam ne moo am dagoo bindaat téer yu bare bare boo demee dañu wax ne ci mboolem kuréelu jullit yi dagoo bind ala tanzil saar wa njëkk a wàcce aaya yi njëkk a wàcce noonu la ko bindee woon ba mu pare moom amirul muminin salawatullahi wasalaamu alayhi noonu lañ ko meloon tam ñoom Sahara dañ ko mokkaloon doom yi sax dañ ko mokkaloon malgré li ñu nekk booba tout tànk ci saahir moo tax moom muy wax moom Zahra salaamullahi alayha ne xubbiba ilayya min duniyaakum salaasa tilawatu kitabillahi wa nazaru fi wajhi rasulillahi wal infaqu fi sabilillahi salawatullahi wa salaamuhu alayha tomb bi nga xam ne moom la ñuy mujjee tey ci dox bi ñuy dox ànd ak fàttaliku juddug Zahra salaamullahi alayha moom mooy tasbihatu Zahra wala tasbihu Zahra moom la ñu tuddee tasab tasab nag nañ koy defee li nga xam ne mooy njàngaleem ahlul bayti salaamullahi alayhim gannaaw julli yi lañ koy def ak booy tëdd rawatina gannaaw julli yi nag la nga xam ne moom lañ koy def mooy ci njàngaleem ahlul bayti moy allahu akbar trente quatre fois trente quatre fois ñeent fukk juróom fanweer ak ñeent alhamdulillahi trente trois fois subhanallahi trente trois fois muy téeméer noonu lañ koy doxalee bu ko defee loolu itam nekk loo xam ne lu jar a ba xel la ndax lu ama am solo la euh, histoire bi gudd na waaye mën nañoo wax ne rek Zahra salaamullahi alayha dafa dañ ko waxoon ne ko coono bi ngay coono waxoon nañ ko ci gannaaw lam daan liggéey dëgg yi liggéey ba ñu ne ko est ce que doo dem ci sa way jur mu wutal la mbindaan bu doon ci tey nga ne ko tuddee noonu waaye mu dem mu ne ko danaa la jox lu ëpp loolu waaye tey balaa ñu yegg foofu dañuy salaamullahi alayha li tax sang bi joxoon ko ko salawatullahi wa salaamu alayha bokk na ci yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali ci loo xam ne Fatima nag noonu la ko gërëmee woon waxoon nañ ko ci sunu daje bi daje yi wees ne Fatima même bi ko yonent bi joxee fidda mu nangul ko lool gëm ko lool xam ko nag xàmmee ko moom fidda nga xam ne même seen koor googu nga xam ne moom lañ doon koor bi Faati Asan ak Useynu euh, feebaree daas da caa àndoon ak ñoom waaye terewul bi ci kër gi waaye ma nit ñi dañ daan ñëw fekk mu ngi liggéey ñu ne ko waaye luy liggéey du am nga mi daan lu leen lu tax nga doo ko bàyyee mu liggéey mu ne ko déet dañoo séddu bis yi tey moo aaye ëllëg maay liggéey bi xoolal ma loolu rek waaw liggéey loolu nag ñun fàdd rek fàdd rek waaw bu kiyee nga ne lii lu tax nga def lële lu tey def nii nangam ak nangam du toog du noppale ko du def nangam doo ko taxkal du ko daj waaw boo da lekk sax léeg-léeg da nga koy ber xam nga yooyu itam léeg-léeg day garaaw mu ne yéen bi bokkoon na ci li taxoon mu bañ Fatima nekk ku xamante ne day nekk ab eh, ku ku ku ku sette maanaam koo xam ne day toog fële nga xam ne boo ko séenee da ngay xam ne kële bokk ci ci ci eh, xaw ma ni ñu koy tuddee ci femme VIP yi ci la bokk nga xam ne li nit ñi def du ko def loolu bokkoon na ci li tax yonent bi bañoon ko mooy bëggoon Fatima mel ni ñëpp ndax kuy xëcc ay nit kuy womat ay nit kuy jiite ay nit da ngay tolloog ñoom ci marché ba pour man leen a jëlee ci seen marché ba yóbbu leen ci kaw waaye boo taxawee ci kaw di leen woo te amuñ liñ jàpp ñëw ci yow loolu du sotti moo tax loolu bokkoon na ci ñaareel ba mooy suñu yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali bëggoon Fatima itam wane nit ñi ne lii e, ngërëmal suñu borom fay bu yowmal xiyaam nit ñi koy amee ci di liggéey loolu itam bokkoon na ci moo tax ba mu ko waxee bañ ko waxee loolu Fatima daal di ñëw wax ko yonent bi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wala amirul muminin mu ndax du ma leen wala ñoom ñaar ñi ànd ne ko ndax duma ma leen xamal yéen ñaar loo xam ne moo gën ci yéen ci ku leen di liggéeyee bu ngeen di nelaw bu ngeen demee ila akastuma manaamakum bu ngeen demee bay nelaw nee wala bay tëdd boog nee na leen allahu akbar trente quatre fois subhanallahi trente quatre trente trois fois ak alhamdulillahi trente trois fois loolu nekk loo xam ne boo demee même ci jàngkat yi dañuy wax ne boo koy def ñaare day wàcceeb coono loolu itam nekk loo xam ne lu jar a ba la beneen bi mooy solo si nga xam ne moom la loolu am muy tasbiyaatu zahra bu dee wax naa ne bu dee ci eh, julli ga la allahu akbar trente quatre alhamdulilahi 33 subhanallahi 33 imam sadiq salaamullahi ali day wax ni man baata ala tasbihati zahra kaana min azakirina lillahi kathiran wa zakirat ku fanaanee te ba ngay tëdd wax nga def nga tasbihatu zahra neen dañ lay boole ci ñi nga xam ne ñooy tudd yàlla lu baree baree bare moo xam muy góor ñi moo xam muy jigéen ñi day wax itam ne wallahi wa annahu moom zahra moom imam sadiq nee na wax tasbiihatu sahara boobu moo gën min alfi rakaatin fi kulli yawmin naafilay junney rakk ci bis ma boo ko boolee ñoom ñaar nag day ëppati day wax itam ne tasbiihatu sahara ci julli goo julli def tasbiihatu sahara ahabbu ilayya min salaati alfi rakaatin moo gën junney julli junney rakk yoo xam ne da nga julli yoo xam ne naafila la naafilay guddi lay nekk boo demee imam Sadiq imam Baqir way juri imam Saadiq salaamullahi alayhi dajaa yokk mu ne boo ko defee yàlla jéggal la say bàkkaar soreel la ak saytaane moo tax parce que tasaara nee na boo ci defee euh, téeméer lay doon ci làmmiñ waaye junne lay nekk maanaam cent lay nekk ci làmmiñ waaye mille lay nekk ci balance maanaam ban téeméer yi fukk ju nekk dañ cee yokk beneen fukk mu nekk mille ci balance te lay sore la seytaane gërëm loolu suñu borom subhanahu wa taala moo tax lu muy ndaw ndaw lu muy yomb yomb léeg-léeg sax ñu sàgganee ko pourquoi parce que yomb gaa tax nit lu yomb rek lu late ci kanamam rek du ko jox fulle ja nga xamante ne moom la ko waroon na jox bu ko defee yooyu yëpp nag nekk yoo xamante ne yu ama am njëriñ la yoo xam mën nañ ko jàngee ci Zahra salawatullahi wa salaamuhu alayha xam naa yeneen i jàngat yoo xam ne dinañ ko jëlee ci Zahra salaamullahi alayha ci yoo xam ne kaw na ci dundam yooyu itam incha allahu bu dëpp ak dogal borom bi danañ ci dellu si waat danañ ci dellu si waat itam ci ay mbir yoo xamante ne moom Zahra salaamullahi alayha euh, ay dénkaane yoo xam ne dénkaane na ko yoo xamante ne ay njàngale la yoo xam ne ay gindi yoo xam ne wax nañu ko incha allah yooyu yëpp nañ ci dellu siwaat bu dëppoo ak dogal borom bi fii ci rajo Mousdahir FM 93.2 di kaddu njabootu yonent bi di jubee fii ci eh, Mousdahir FM eh, ci ci Zac Mbao complexe imam Ali alayhi salaam Dakar ak ci Zahra FM 93.8 di kaddu njabootu yonent bi di jubee ci Kolda. ak li ko wër ak ci mbooleem médium yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ci technique bi soxna Xadijatu Diouf Cheikh Tidiane Diawo ci Mouzayir FM ak ci Omar Diawo ci Zahra FM ci micro bi seen mbokk Mouhamadou Mourtada Gaye wa aaxiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu moom Zahra salaamullahi alayha yitt ji mu joxoon alquran di ko xeewlu lépp lu ci ñëw rek moom da koy daal di jëfandikoo daawul ko taxawal lépp lu ci ñëw rek da koy taxawal ne benn bis aya alquran dafa ñëw laa tajalu duaa rasuli baynakum ka duaa baadikum baadan bu leen di def woo yonent bi ni ngeen di woote wante yenu neen waaw neenam yoon ko ngeen ko ngeen koy woote léegi tuddee ko ñaan nag waaye rechange bi que ci walla ci wàllu wi bu leen di woo yonent bi ni ngeen di woote woo yi woote wante yenu neen mu ne Zahra salaamullahi alayha mu ne ba ma déggee loolu daal ma ne ko yow sama way jur man de di commencé tey dama lay commencé di wooyee yaa rasulallah mais di commencé di ko wooyee yonent bi woo ko ne ko ay yow sama doom ay bi wàccut ci yéen wàccut ci sa njaboot xamal ni ñi ngi wàcc ci ñi nga xam ne dañoo euh, euh, dañoo ñàkk teggin moo ko mën a tuddee noonu ahlul xilfa wal fat wal fababa ñàkk teggin nga xam ne wéyintel naan ko Muhammad waaw ñu ñoom lay waxat waaye waxu dëgg jël waxal ne e eh, xoolii lii abati yaa abaa wax ma loolu ndax loolu mooy gën a dundal sama xol te loolu mooy di gën a dëppoo ak ngërmandeel sunu borom subhaanahu wa taala pour wan la ne rek moom euh, loolu moom euh, moo doon alquran az-zahir wala boog euh, an naatiq salawatullahi wa salaamu alayha moo tax ci li ñu mën ci yitte ju mu joxoon alquran takkoo bu mu joxoon relation bu bu mu am bëggu bu mu ko bëggoon moom da daa amirul muminin ali ibn abi talibin salawatullahi wa salaamuhu alayha ne ko bu ma fi jógee dil dem ci sama xabru di fa jàng alquran booba dencee ba pare waaw malgré nag nga xam ne xabru ba dañ koo denc dañ koo nëbb waaye amirul muminin mi nga xam ne moo ko fa def xam na ko moom da koo dénkoon ne ko dil dem ci sama xabru di fa jàng alquran moo tax dem ci xabru léeg-léeg day am solo surtout nag xadis yi nga xam ne dañu ñëw ne xabru bépp boo xam ne dem nga fa jàng fa juróom-ñaari ina anzalnaahu ànd ak bismillahi rahmaani rahim nag te g nga jiitale julli ci itam nag lu mu ndaw ndaw nga jiitale ko julli ci mu jëlee ko ko boo ko fa jàngee yàlla dana yërëm kooku nga xam ne mooy borom xablu boobu moo tax itam dafa am solo lool waaw ziare xablu waxoon nañ ko ci suñu dajee bi wees ni ko fonke woon moom Zahra salaamullahi alayha bon daan na ko digle woon ne ko ngir bëgg gi mu bëggoon alquran xam gi mu amoon alquran ne leer gi nga xamante ne moom mooy jollee ca e, alquran jooju ak li mu mën a jëriñ moo tax jàng ko ki fi jógee ko ak am solo sayyidul afkar afkar mooy alquran yàlla sunu borom wax ne wala sang bi muhammadin sallallahu alayhi wax ne loo ca wax bu dee aw arab ket kot woo xam ne ci alquran nga ci jublu boo ko waxee yàlla li fi lu baree baree baree loo xam ne gis nañ ñun ñëpp li nga xam ne kenn mënu koy misaal tey ci ci ci ci ko joxee nga ne ko yàlla lii def naa ko xadiyee yonent bi lañ ko diggee jox ko rooxu jiw gars yi na nag loolu du àgg ah mais ku fekkee ne koo xam ne xam boo ci jàngee loo xam ne day indi mbug day wax mbugal ak day nangam ak nangam ma ne wala tasir waasiratin wisra uxra kay waaw tabat yadaa abii lahabin da nga wane boo ko jàngee doo am tiyaabo am eh, kay tabat yadaa abii lahabin baraatun min allahi wa rasuli waaw eh, li ilaafi quraysh xaw ma nu mu ko waxeeti eh, kii bële alam ci jàng mu da alquran ak lu mën a wax da nga am ab yool ab ci tiyaabo tiyaabo jooju nag def ko addiyee yonent bi ak njabootam yónnee ko borom xabru yàlla soppi ko muy leer soppi ko muy xiwal soppi ko muy njiggal soppi ko muy ak woyofal defal ko ko muy texe ci a jooju mu nekk waaye yónnee la sa yi itam ci adduna fi ëpp naa ñàkk a def loolu moo tax Saara salaamullahi alayha moom da koo taxaw woon da ko doon wax da ko bëggoon alquran fonk ko topp ko waaye digal itam amirul muminin Ali ibn Abi Talibin salaamullahi alayhi ne ko bu ma fi jógee koo def jëm sama xam di ko jàng beneen fii point boo xam ne itam jar naay baqel ci dundum Zahra salaamullahi alayha mooy ni mu fonke woon ay kii eh, hadis yi hadis yi nga xamante ne eh, bay jógee ci sang-sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali da ko fonkoon lool da ko fonkoon lool di ko jàng di ko jàngale waxoon nañ ko ci gannaaw tuuti nit ñi dañ dan ñëw di ko laaj léeg-léeg ay góor sax dañ daan laaj wax seen soxna ne ko demal ci saara nga ko nangam ak nangam ak nangam bu tontu leen ca da ko daan def eh, di leen waxal di ko nettali bokk na ci lim nettali ne xaala yonent bi moom wax na ne yonent bi moo ne bokk ci julli bi ki nga xamante ne ka dëkk yow mayoo ko jàmm bokk ci julli bi ki nga xamante ne nii du gëmut yow yow mal xiyaam te lu ama am solo moom yowmal xiyaam defoon nañ ci ay émission defe naa ku dem youtube bi da ko gis loo xamante ni war naa ma dix-neuf émission ci diggante diggante boobu mu nekk loo xam ne régulateur la waaw bañ ko bàyyee problème yu bare bare bare di ñu dal régulateur boobu la ñu amatu parce que ci suuf la ñuy xool xoolatuñ foofu nga xam ne mooy point ba ñu jóge ko ndax adduna bi moom comme ni ko bi jàngkat yi da waxee ba ñaari tombo moo ci am ñaari diggante ñaari tombo benn rëdd bu jub dong moo ci mën a nekk benn rëdd bu jub ne entre deux points benn une euh, une ligne droite benn doo nga moo ci woon beneen boo ci teg superposé lay teglante lay nekk moo tax boo xool taxawee ci adduna di xool àllaaxira ñaare man ngay jaar ci yoon wu jub waaye bu dee xooloo àllaaxira nekk adduna rek loolu mën nay am nit ki doxam du sore te itam du moo tax Zahra salaamullahi alayha da ko daan digle di nekk li sang sang yi Muhammadin sallallahu alayhi wa ali li nga xam ne yitti ji mu ko joxoon moo tax mu ne eh, ku gëm suñu borom subhanahu wa taala gëm ne yawmal qiyaam dana ñëw yàlla te ku dem da nga fa fekk say jëf nee na booy wax na nga wax aw yiw bul topp tiktok yeeg nangam ak nangam yi di déplacé rek wax ju bon rek ngay wax mais ni ju baax daa amut wa qulu linnaasi xusnan li baax di leen ko wax nit ñi waaye loo fekk mu bon nga yàkkamti ko partagé lépp lu baax nga nga teg ko fa mel ni daa bokkul loolu wóorul mbokk yi nañ defaraat suñu bopp nañ defaraat suñu bopp fal yaqul xayran aw li yasmut lébu da nee na inna allaha yuhibbul xayra yàlla dafa bëgg ki baax de alxalimu ka leer ki almutaafif ki nga xam ne daa amul day moytu wa yubtidul faaxisha day ba daa bañ ki nga xamante wax ju bon rek lay wax ak ki nga xam ne daa nay laaj rek waaye du joxe ak ki nga xamante ne nii moom euh, amut benn kersa amu ko kersa mu ngi bokk ci ngëm yàlla ngëm yàlla boroom la mu ko yóbbu mooy ajjana nee na la ñaaw làmmiñ nag mu ngi bokk ci mbon te ak mbon moom safara rek la jëmale boroom moo tax loolu tam lu am solo la moo tax mbokk yi euh, lu am solo la ñi xam ne itam mbokk yi lii nga xam ne moo ñu moo dal jamono ji ñu nekk dee gi bare na lool accident yi fu nekk ñi ngi dem ci turu Maulana Chérif Mohamed Ali Haydara yónni woon na ab bataaxelu njaal ci événement wu ba euh, yeneen tegu na ci surtout bu tey bii nga xam ne dèjà ci information yi ñu ñaar fukki nit faatu nañ ca yàlla nañ yàlla yërëm nit jiitu yal na yàlla wéral ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, am ay gaañu gaañu yi waaye yàlla yàlla def ci suñu xol yi itam ñi seet accuser suñu bopp du mbir mu nekk rek dañuy wax ne kenn ku nekk tuumaal sa morom kële kii la kële ne yoon wala kële ne safoor yële kële ne pono yële kële ne nangam ak nangam la yàlla lañ nga xamante ne dañ ko daan def dara mu mbugal leen mbugal yi mën nay soppeeku waaye jëf yi du yàlla boo defee lu baax ñi nga xam ne ñoom la jaraloon ñoom la jaral nañu yàlla mu defal leen lu baax ba léegi ku fi def lu baax lu nekk mu jaral ko yàlla waaye ku def lu bon génn def loo xamante ne bokkul ak li suñu borom subhanahu wa taala santaane li araamoon nekk loo xam ne fi ne daanaka mooy lu dagan li nga xam ne mooy dagan ku ko fi def ñu mel ni yow da def ak kéemaan bu feesee ci suñu réew yi feesee ci sunu adduna bi nañu séntu ne am na ay ndog yoo xamante ne mën na ñëw te yooyu nag farme ba bu ñu séntu ne ndax ne yàlla defoon ci yonte waa kër yàlla Luut wala yonte yàlla Saalix wala yonte yàlla euh, beneen na mu leen defoon noonu bu ñu séntu ne noonu lay amee mbir mi mën naa ñëw waaye soppeeku yi da mën naa am ca na mu ñëwee wala la nga xamante ne moom mooy ñëw bon nañ seetaat suñu bopp moo tax sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi di wax naan xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu na ngeen di auditer seen bopp na ngeen di xisaab seen bopp ban suñu jamono war nañoo taxawaat seetlu seet est-ce jaar foofu la am déet yaakaaruma ko bu fekkente du foofu ñu am courage ak njàmbaar nag innama tawbatu ala allahi alladina yamaluuna suua bi jahala summa yatubuuna an qarib ñu tuub du wees mukk bon nañu tuubaat léegi-léegi ndax yàlla wa in min qaryatin wala boog beneen aaya ba eh, bu fekkente ne waa dëkk waa réew mi waa adduna bi soppi nañu gëm nañu suñu borom wala istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan xadaqan bu fekkente ne yàlla jaar nañ yoon wi rek moom itam mu jaarale ñi fam daan jaarale gaayam ya nga xamante ne ñoo ko nanguloon te di def ndigal ya di bàyyi tere ya bon war nañoo seetaan ñun ñëpp suñu bopp audité waat suñu bopp seet ba xam mbir yi ñëw ndax ci duwut ci Euh, ndax du tiil loolu itam defe naa ne lu jar a ba xel la waaye jamono bu nekk rek kii tuumaal kële kële tuumaal kële kii yëngatu fële kële def na li te duñ seet mukk suñ bopp ndax lu ko waral jàpp na rek mbir mi mbiram matériel la du loolu mooy yàlla bu nekk am na ay conséquences am na ay asaar am na ay jeexital yoo xamante ne moom lay def ci nature bi te nature bi ay onde rek la nag ay énergie ay onde énergie rek la yoo xam ne bu fekkente ne dañoo indi ay onde positif maanaam la ngeen ne la indi mooy ay ferñeent yoo xamante ne yu baax la yu yu yu yu leer la yu rek rek suñu borom subhanahu wa taala la muy la loola di jur ci suñu doxalinu aduna ak ci suñu def jëflante ak suñu nekkin day nekk loo xamante ne lu baax la waaye bu fekkee ne dañu indi yoo xamante ne ay taal rek la moom rek li ñu indi ay onde négative la yoo xamante ne dañuy yuy taal la yoo xamante ne yu bon la yoo xamante ne yu xeeñ la yu xesew la yu bon la la muy jur rek moom mooy moom mooy lu bon ndax boo indee ab parfum boo xamante ne da nga koo pompe ci néeg bi la mo lañ cay xeñtu moom mooy xeej xen xeej eh, gu neex waaye boo fa defee loo xamante ne du taj bu neex boo fa séntoo ne da nga fa am air bu neex bu boobaa da ngay nax sa bopp bon fokk ñu xoolaat suñu bopp yan leen yàlla yërëm ñoom ñëpp te jéggal leen ñi blessé yan leen yàlla wéral te yàlla yemale ko